assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw buñ sante allah subhanahu wa taala julli ci yenentam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu leen nuyool bi ngeen dégg léegi kon ñëwaat nañ fas yeene àndaat ak yéen ci téere bi ñuy tuddee al adkaaru wal aadab kon ñu ngi nekkoon ci dars bi passé lu aju ci ngeneel sàkku xam-xam kon tey almuallif xafidahullah lum ñuy waxtaanal moom mooy fadlu taallumil quraan mooy ngeneelu jàng alquraan kon xam-xam wax nañ ngeneelam ci lu yaatu kon tey mu jagleel bunt bi lu aju ci wàllu ngeneelu jàng alquraan alquran mooy waxu borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne moom la jox jibril jibril wàccee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi jàngal ko ab xeetam mu nekk wax boo xamante ne dañuy jaamoo yàlla ci jàng ko noonee la tamit dañuy jaamoo yàlla ci déglu ko waaye xool bi nga koy xool dañ ci jaamu borom bi subhaanahu wa taala alquran mu nekk bi ñu bind ci téere borom subhanahu mu tàmbale surat al mu jeexee surat an naas mu nekk téere boo xamante ne nit ak jinne lottu nañ ci indi lu mel ni alquran borom subhanahu wa wax ne yéefeer yi ñoo xamante ne dañ doon bàkku di wane ne ñoom ñu mën a wax lañ yàlla nee na lañ indi leen lu mel ni alquran mënuñu ko te jéemuñu ko waaye tamit nee na leen nañu indi benn saar bu mel ni alquran mënuñu ko mu nekkoon nañu indi fukki saar mënuñu ko borom subhanahu wa wax ñu nekkoon nit ak jinne bu ñu booloo woon pour indi lu mel ni alquran mënuñu ko kon alquran mu nekk al mujiz boo xamante ne dafa lottuloo nit ak jinne ak mbindeef li mu indi lu mel ni alquran kon téere boobu mu nekk téere boo xamante téere bu barke la boo xamante ne borom bi subhanahu wa taala wàccee na ko si ñun nit ki bu sakkoo takkoowee di ko jàng borom bi subhanahu wa taala dina ko defral barke moom mi koy jàng waaye tamit bërëb bi nga xamante ne dañ fay jàngee alquran day doon bërëb bu barke loolu moo tax mu ne kon qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ku gën baax si yéen mooy ku jàng alqur'an waaye yemul si jàng ko kese waaye def ka jàng bo mokkal ko mën ko waaye mu taxaw di ko jàngale kon koku mooy ki gën baax ci xeet mi ki jàng alqur'an taxaw di ko jàngale ndaxte mbokk yi alqur'an lépp li nga xamante ne dafay jural doomu aadama texe ci àdduna ak àllaaxira mu ngi ci alquran kon ki taxaw di jàng loolu di ko jëfe waaye taxaw di ko jàngal doomu aadama yi kon la chaque ne amul ki ko gën loolu moo tax loolu moo nekkoon mission yenent bi salaa sallam mooy jàngal xeet mi alquran firil leen ko ba ñu dégg ko mu appliqué li nga xamante ne moom moo ci ñëw ci ay ndigal ngir xeetam mun a jëlee ci moom yaxu alquran waaye tamit ñu mun a jëlee ci moom firi alquran kon lool moo tax ki taxaw taxawaay boobu nag dafa mel ni kon mu ngi taxaw di jottali di mottali mission yenent bi sallallahu alayhi wa alihi kon lool moo tax mu nekk ku gën ci ñi nga xamante ne ñoom mooy xeet mi mu ne ba tey yenent bi wa sallam nee na mathalu alladi yaqra'u wa huwa xaafidun lahu ma safarati alkiraami albarara misaal kii nga xamante ne dafay jàng alquran mu nekk ku mokkal lool alquran kooku dafay ànd ak malaayika yi nga xamante ne dañuy tukki diggante asamaan ak suuf te ñu nekk ñu déggal seen borom ñu nekk ñoo xamante ne ñu nangu ndigal borom subhanahu wa taala la du ñu moy borom bi subhanahu wa taala kon kooku day am darajay ñooñu noonu la ko borom bi subhanahu wa taala di yëkkatilee garaat mu ne walladi yaqra'u alquran ki nga wa mathalu alladi yaqra'u alquran ki nga xamante ne nag dafay jàng alquran wa huwa yata'ahaduhu mu koy nafar ah di ko jéem a mokkal muy am jafe-jafe si mokkal yax ji muy am jafe-jafe tamit ci tariko mu ne kooku wa huwa alayhi shadid te fekk jàng boobu mu nekk lu jafe ci moom pour mu mun a ijj ba mokkal aaya dafay jafe ci moom mu nekkoon kon kooku fa lahu ajraan kooku am na ñaari pay borom bi subhaanahu wa da koy fay ñaari yoon da koy fay si jàng bi nga xamante ne mu ngi koy jàng alquran bi waaye tamit mu fay ko coono bi nga xamante ne mu ngi koy sonn si mokkal alqur'ana boobu kon loolu moo tax jullit bi danga war a góorgóorlu bul ne mënuma bul ne mënuma jéem naa ba sonn waaye déedéet bul xaddi nang si sax guddi ak bëccëg nga def sa effort nga xam ne lépp loo jox si alquran si sa waxtu borom bi subhaanahu wa taala la koy fay kon loolu boo ko déggee yow mii di jullit bi dangay ngay war a góorgóorlu nga gën a takkoo ak téere borom bi subhanahu wa taala hadis ñaari yépp buxaari moom moo ko solo ba tey euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne iqra'u alquran fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an li ashaabihi rawahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jàng leen alquran alquran de dafay ñëw yowmal qiyaama di ràmm ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu alquran ñoom ñooy ñi ko doon jàng di ko jëfee fii ci kaw suuf alquran dafay ñëw di leen rammu ci borom bi subhanahu wa taala ñaan borom bi subhanahu mu jéggal leen mu tabbil leen aljanna kon hadis bi imam muslim moo ko solo kon hadis beneen yenent bi salaa sallam hadis bu bu doy waar ci lu aju ci wàllu alquran mu ne ñu wal quraanu xujjatun laka aw alayk mbokk yi hadis bi kenn ku nekk saa yoo xëyee war nga taxaw nga peese sa bopp ci hadis bi yenent bi mu ne alquran yowmal qiyaama benn si ñaari mbir yi lay nekk imma mu nekk lay ñella la yow mii wala mu nekk lay sa kaw boole la si borom bi subhanahu wa ta'ala kon war nga saa yoo xëyee nga laaj sa bopp ndax alquran dina nekk sa lay ëllëg wala alquran dafay nekk lay ñell nan la alquran di nekkee lay ñell mooy boo góorgóorloo nga jàng ko nga jëfe ko bu ko defee yowmal qiyaama bu ñëwee layal la ci borom bi subhanahu wa taala waaye koo xamante ne jàngul alquran jëfewul alquran kooku alquran day nekk lay ci kawam waaye tamit koo xamante ne jàng na alquran waaye jëfewul alquran alquran tamit day nekk lay ci kawam kon kan mooy ki mucc ki jàng alquran jëfe alquran waaye boo ko jàngee jëfewuloo ko kon yow teg nga layub yàlla sa kaw ay yi nga mokkaloon te ñuy tere loolu nga def dañuy ne ah yàlla kii xamoon na ma waaye def ma bañoon jëfe mu daldi moy bu ko defee kon kooku dugg na koo xamante ne nag xamul alquran ku ko defee alquran day ne yàlla kii xawma ko xamuma kon loolu moo tax mbokk yi nañu góorgóorlu ci jàng téere borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla defal tawfiq ak taysir may ñu ñu bokk ci ñooñu alquran hada wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa sallama assalaamu aleykum وبركاته وقل رب زدني علما